waaye bu xel xol bi xoos ko. ñoom sax Sahara sax ci bëccëg ay après midi. Hmm. mi ngi may woo parce que ñoom dañoo comprendre toon ah. parce que ñoom dañ cee teg yàpp yàpp bi xam naa nekk ci yeneen daal. dafa xam <laughs> dafa xam ma ko mooy teg ba yow muy xam. dafa efficace. daa gaaw dafa efficace dafa efficace. noonu la demee nag da teg rek teg rek teggi. <laughs> eh kooku dañ jaay Touba la. Eh, léegi contre naa ba la. Eh, Ndiaye. Eh, yi xam nga nag. xamna lol dama ñewon fi tay pour def demande. waaw pour safar gi. ah kaay nee ma gas ak mat teriñ waaw magal gi man na rayante ak muy taw. waaw day taw de day manqué de ah vraiment. am kuma conseiller wa da ngay dem ci oustaz mu àll xol xolub sa waay ji <laughs> xolub sa waja xam nga borom impôt. moo tax nag ma ñew ci yow. waye mu ñe nga xol on ma kaye bi. ah kaye bi moom laa xam ne nag mënatuma cee bokk vraiment vraiment fii ba 18 safar ah. ñun ñuy woote naa dañoo am ngénte dañoo am takk dañoo am tànn béer na ngeen xam ne xol bi mun leen cee tàngal café maanaam loo ci xamul njaay waaw yow carnet bi ma la wan nga nekk cent vingtième personne ah. du première kay bi de ab 300 pass laa njëkk a jënd dama yéex a ñëw 300 pass bi rek nombre bi ma baaree. Ah. moom après gàmm la ko soxla. te chaque jour nag fii fii ba booba chaque jour am na ku ñu war a yóbbu. waaye dégg naa ne ñëw nga leen na ndax tey yaa ngi ko joxe ci Thiès. Zahra Fatma Zahra Ndiaye nga ko jox tey. waaw jox. nee ko nag bu xool bi xoosu. léegi <laughs> bu mu xoos waaw xam naa mënut a jeexal tàngoor waaye bu xel bi xoos wallaay ñoom sax Zahra sax ci bëccëg ay après midi mi ngi may woo parce que ñoom dañoo comprendre toon parce que ñoom dañ cee teg yàpp yàpp bi xam naa nekk ci yeneen daal. dafa xam <laughs> dafa xam man ko mooy teg ba yow nag muy xam. dafa efficace. mbaa ngi am dafa efficace. tàng dafa efficace. noonu la demee nag da teg rek teg rek teggi. <laughs>